waaw kontaan rek kontaan li maire bi def lii dafa rafet quoi waaw ñëpp a kontaan quoi parce que tamit xam nga ñëw defacte ñëw defacte defacte koñ bi defacte maire bi xam nga jox booy ay masque loolu lu nice la quoi waaw waaw yi non toog rek ba ba affaire yi jeex rek ñu commencé waat suñu activité loolu la ñuy def non entraînement yi moom dañoo aj yëpp moom wax dëgg yàlla fi mu toll nii moom aj naa lépp ba affaire yi jàll ma commencé waat entraîné waaw waaw non Balla Gaye kontaan rek Balla Gaye mérité na lépp loolu parce que tamit xam nga moom moom moom mooy loolu quoi xolam yàlla na ko yàlla fay xol bu rafet la yor waaw moom lu mu am mérité na ko bis boobu kontaan laa si def ak ak fierté waaw bis bi nag xama nga liy cat li mooy li am fii nga xamante ni xam nga feebar bi fi am ba mënuñu koo feete carrément rek loolu la rek quoi mais dañ ko waroon féete carrément ba ñëpp xam ni géejawaay gépp xam ni bala Gaye moo xewle waaw noonu la waroon demee waaw sama sama mbokk mbari li ma leen li ma leen di lancé mooy nañ nañuy raxas loxo yi di toog xam nga parce que tamit affaire yi moom xam nga nekkul fu mu nekk fu mu dem rek nit a ko fa yóbbu kon ça veut que mooy na nit ñi toog xama nga am beneen matuwaay bu ñuy def seen bopp xama nekk xam nga xam ne affaire bi dëgg la daal kuy rey ay ati ati kuy rey ay junni junni nit xama ñun moom xam bu bu fi ensonné rek dinañ am problème waaw wasalaam maa ngi nuyu géej waaye nuyu gunaas gi yëpp.